ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na amis téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di amati nag mbégte di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk rek te di leen wax dalee nag jàmm ci seen journal de l'arène comme ni ñu koy defee nag nii la baaxoo di demee a chaque fois rek lépp loo xam ne dafa jóge ci arène bi dinañ daal di toog fii daal di ko faram-fàccee waaye toujours rek ma ci ànd ak ki nga xam ne moo di Babacar l'incontournable ci loo nekk. boobu <laughs> euh, tur moo rëy l'incontournable man maa la ko tuddee da nga koy nangu. <laughs> mais maa ngi lay di leen wax ne namoon nañ leen di leen ñaanal jàmm. <laughs> leen balu àq bu baax a baax a baax di ñaan yàlla defal ñu jàmm di la bëggee di bëggee képp ku ñu suivre rek à travers le monde mhm. mais bon l'incontournable moom Babacar man maa la ko tuddee waaw am naa ci droit xanaa <laughs> bien sûr kon ah. nangul naa la ko mais nag <laughs> ab taalibe ab ndongo laa rek mais nag je suis d'accord avec toi mhm. y'a pas de souci waaw baax na voilà mbokk téléspectateurs yi ñu dem seetaani revue bi daal si dellusiwaat asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah lundi 26 avril 2021 dañu ñëw ak yéen ci likkaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglekaay bi di suñu làmb nag tey xëtam mu njëkk moom lam ca xëy fësal wala ca xëy fësal moom moo xam ne nii moom moo jiite làmb bi réew mi maanaam mu ca la mu xëy xam moom ay condition daal la fi mu nekk nii promoteur yi ku ko mënul boo yeboo nga toog condition yi nag bokk na ci daal maanaam cinquante pour cent yoo xam ne nii da nga koy verser ci kasa bu mbër mi nga xam ne nii moom nga tëgg ci CNG balaa combat ba ñu koy souffler ñuy bëre Bira yemu ca balaa loolay am tamit nee na di nga joxe benn caution boo xam ne ci un million lay toll nee na daal lii moom promoteur boo xam ne ngir pare pare woo ngir def ko ren moom booye boo nga leb say kàggu ak say kaat te xam ne tëgg làmb moom doo ko def loolu mooy waxi Bira Sène ak waa CNG mel ni ki nag promoteur yi bàyyi wu ñu mbir mu sedd am na ay promoteurs yoo xam ne rawatina nag kuréel ga Pape Abdou Fall jiite moom tontu nañ ko ba mu saf Pape Abdou Fall daal xamal na ko ne daal yow sa arrêté boobu daal soo bëggee dëgg-dëgg moom maanaam xotti sànni ci àll ba lañu koy def ndax du ko def tey suba waxi noppi li nga wax yow Bira Sène wax yaag waa jàppal ne moom ñun xalaatun ko bu naree am nu bàyyi laak làmb ji nga seet ñeneen noo def ak ñeneen ñoo àndal waaye loolu moom xalaatun koo def di ree wala nu koy def di jooy loolu mooy wax waxi li nga xam ne ni moom mooy Pa Abdou Fall ak promoteur yi nga xam ne ñoom la àndal leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne ni moom xëy na tey ci yëglikaay bi di sunu làmb tamit wax fa muy ka nga xam ne ni wala mu def fa moom moo di Moget Moget daal loo naan ko moo get looy koy xalam di ca jaayu barke ba yaay ba rob moo get daal daa mel ni way woowa ba tey moom la continuer de ndax nag moo ñëw na ca làmb ja nag fas yéene jaayu wane fa boppam ba taxawal na ay combat yoo xam ne yu neex a neex la ndax Jordan ma ngeen xam moom la jël Jordan ma nga xam mu nekk fa nga xam ne nii moom moo di ci écrit ba nga xam ne nii moom moo di xam sa cosaan daal moom la jël boole koog doomu dàngu ma nekk fa nga xam ne nii moo di ca tëngéey ñu ne ko dé ne waay mu ne du ma cee man moo get Cobra numéro 2 mi ngeen xam ak Baara Njaay bu faas tamit boole na leen yemu ca de tonnerre ma ngeen xam tamit ca Pikine mbooloo moom la jël boole ko ki nga xam ne moom moo di mobile numéro 2 bu Grand Yoff ñu ne moo get fa lay yem moo ne day wis gaaya lam leen wisa nag jàppal bokk na ci la nga xam ne ni ay combat yoo xam ne ña koy bëre ku ne xam ne nii bës ci réew mi moom ëpp leen ko fi mu nekk nii jafe na bokk na ca Alaaji Mbay ak Këccëg combat la boo xam ne dafay amoon maanaam ka nga xam ne mu doon Alaaji Mbay daanoon këccub rawaas ba nag moo gét daal dina koy taxawal beneen combat boo xam ne tamit ab rawaas la amee woon ca Gàmbi doxoon ci diggante wulli ak liiru jaan te liiru jaan amoon ndam ba tey booba tamit moo gét jël na ko daal di koy boole ca bés booba mel ni kon moo gét daal soo bëggee dégg dëgg moom aw yaramam fi mu nekk nii tàng jër la def am na koo xam ne nii moom waxoon na fi fan yii maanaam muy Tafa Gueye samedi jii nu génn di jàng daal diggante ka nga xam ne nii moom moo di Ama Baldé ak Modou ba jàpp ne ki nga xam ne nii moo di Ama de na def ndànk ci kaw moodlu ndax ka nga xam ne moo di Modou bokkul ak Tapha ndax moo gën a coriace mel ni ki nag wax jooja moom metti na lool lool lool ña nga xam ne ñoo di waa kër Tapha Tine rawatina Elas Thioune ma nga xam ne moom moo dem ensemble yore ko Elas nag moom micro Equivox ak ci sunu lamb bàyyiwul fenn mu sedd fu ci ne dem na fa tontu tafaagee xamal na ko ne booy wax yow tafa xamal la ngay wax jàppal ne kay xanaa sa mbër la Modou loo gën a coriace muy Gris Bordeaux waaye moom mbërëm Tapha Tine moom jàpp na ne ci làmb ji amul mbër muy takk ngem mu ko gën a coriace jàpp na ne tafaagee tamit tëdd njaaxaanaay lu ko jafe la te daa war a tëdd njaaxaanaay ndax ñépp a koy bàyyi xel di ko seetaan elas tul daan lii la wax yemu ca ceeki su tamit taakle na fa Gris Bordeaux xam ne na daal mbërëm moom moom Tapha Gueye muy Gris Bordeaux saa yu ne promoteur yi dox nañ diggante ak Tapha Tine mu daw maanaam seet mu jaar ba génn ci ñi mu la lekk avance ba mel ni daal moom tontu na Tapha Gueye ba mu sat koo xam ne moom bëri naag Tapha Tine mooma muy Balla Gaye numéro 2 yëglikaay bi ñëw na ci moom ci atum 2005 ak juróomi combat ya nga xam ne bëri na ko mel ni que yëglikaay bi jàppe na Balla Gaye daal l'homme des grands défis maanaam daal Balla bis mag yi moom soo bëggee dégg-dëgg yàgg na caa wane boppam sunu làmb moo xëy tey wax nu ko kenn koo xam ne tamit yàgg naa wane boppam bañ tudde ko l'homme des grands événements muy ki nga xam ne nii moom moo di Luc Nicolaï yëg likaay bi nag xëy na nu xamal daal ne boo bëggee dégg dëgg daal Luc daal maanaam bu nu wooree ba wooree daal Luc la mu fas yéenee commencé balaa ñëw ci muudoog ama daal maanaam 3 millions la teg fa nga xam ne nii moom moo di ca ñaning loolu nag sunu lamb mu ngi nuy xam ne daal le 15 mai lay am fa nga xam ne nii moom moo di ca ñaning lig ni ko laal loolu la fas yéene nuyoo amateurs yi rawatina nag waa lamb simple kenn koo xam ne mook lig ñoo dëkk muy pakala di doomi mbuur moom ka mu xëy di dànkaafu du kenn ku dul ka nga xam ne nii moo di força moom mu war a bëri pakala nee na ko yow força xeex ma duma la bëre ma daan la ndax lu mu ci mën a doon rek maa la ci man te maa la ci raw te itam nag duma ci sa morom loolu mooy waxe ka nga xam ne ni moom moo di pakala ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di ba tey sunu làmb yëglikaay boobu buñ fa jógee toxu ci beneen yëglikaay mu yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di record record nag moom xëy na tey dikkal ñu ci loo xam ne ni amoon na bërki dem boo demee record da nga fay fekk loola fekk ko Equivox TV fekk ko Lutte TV wasaare muy la nga xam ne ni moom moo di ab convention boo xam ne dañ ko doon signé mu doxoon ci diggante docteur ma Diouf directeur horticulture ak ka nga xam ne ni moom moo di Bamba Mbuub ma jiite fiis fiis nag moom mooy defal mbëri formation ngir ñu am liggéey mel ni que nag wàllu mbay ma moom docteur Macoumba Diouf tàllal na ña nga xam ne ni ñoom ñoo di mbër loxo ngir ñu mën a dugg nag ca mbay ma ngir xaalis ba nañuy gañe ñu mën caa mbay nag ngir mën a gañe dara bu seen carrière jeexe mel ni que nag mbir ya mu nga amoon fa nga xam ne ni moom moo doon ca mairie Patte d'Oie yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci kenn koo xam ne nii ab saison da koo fas ne ubbi muy Yaxya Jóob Yékini maanaam ak waa Faatu production yëglikaay bi record xamal nañu daal Yékini moom te ñaaxar lay ubbee ji ak 3 loolu daal yëglikaay bi xëy na tey dina wax lu mel ni ki noonu loolu nag le 22 mai yëglikaay bi nag ca lay am Reug Reug moom mu nga Singapour di waajal boppam ci combat bi nga xam ne ni war na ko faa jongante jëmati ci la nga xam ne ni moom moo di MMA bi yëgli kay bi record moo xëy tey ñëw dina ko wax waaye loolu ci mën a dégg li ma lay xamal daal tey jàppal waaye ba Wally Seck noonu moo get koy xalam di ca jaayu barke ba yaay boroom moo daal daa mel ni xalam na jaayu na ca xulle ndax moo get nag yaakaaroon nañ ne daal am américain la buy dund leneen ak leneen waaye daa mel ni jaxasoom ak mbër ya confirmé na ko ndax nag moo get ñëw na tëgg ay combat yu neex a neex kon moo get ahlan wa sahlan lan lay wax dana la jàmm ndax nag làmb réew mi ku koy yokk di ko may doole du lu mën a def lu dul ne la nga dal ak jàmm te la nga summ yàlla na yegg ak jàmm waaye combat ba ma dàqal man mooy wulli ak liiru jaan nga xam ne fii lañ ko nar a du am daw du am arrière du am tëdd du am dama som faw kenn daan wut voilà te muy dëgg kuy xalam di ci jaay ba tax na ñun waa Equivox bu ñuy def suñu JDA dañuy xalam di ci jaay waaw. yëngu di yëngu la <laughs> maa la wax nii du ma la neex pas de stress ñii de problème. Hmm. Babacar yaa ngi lire suñu commentaire yi temps yi. waaw maa ngi koy gis. am na ko ci ne Babacar ndaw si da laa nopp. waaw man ah. nga nopp ma daa aay. <laughs> yow waroo maa mën a ma man góor laa góor yàlla laa. te mën naa yor jigéen te am man du dóor jigéen du saaga du ma. waaw ba ñu revue ba pare. voilà voilà ñu daal di tijjee tey suñu làmb. waaw comme d'habitude suñu làmb lañ koy tijjee tey euh, waa CNG nag daal di jël rek euh, benn ndogal boo xam ne ñoom dañoo fixe ay condition euh, ci li nga xam ne moo di promoteur yi bu ñu bëggee amal ay datu combat maanaam daal versement boo xam ne 50 pour cent lay toll ci cachet li nga xam ne moo di bërekat yi ak dépôt d'une caution 2 millions de francs CFA moom la ñuy tëgg li nga xam ne moo di combat yi waaw loolu CNG ñoo jël boobu ndogal xam naa ci semaine bii ñu génne la wala ci weekend bi sax ci lañ dégg ci wax jooju kani léegi nag ah maanaam promoteur boo xam ne da nga tëgg combat di nga sa cinquante pour cent ci kase mbër mi au niveau du CNG balaa ñuy souffler combat bi yemuñu ci ñu ne tamit di nga joxe lu tollu ci un million caution balaa ngay am ab date ak yu mel ni ki noonu wala ngay tëgg làmb waaw nag defe naa ne ah, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ñoom ñoo xëy jël boobu ndogal man nag li ma ci xaw a jaaxal lenn rek la moo ci suma problème ah mhm. mooy lii ñoom bi ñu leen falee balaa ñu doon ubbi saison bi mhm. bay bàyyi nit ñi di bëri pourquoi waru ñu woon toog ñu jàngat xool jël décision yi mhm. mais ubbi nañ saison bi ba saison bi nag en cours di dem nit ñi commencé bëri promoteurs yi dox ay combat taxawal ay combat dut ay date ñu xëy un bon rek ne lii après ci biir daal boo koy dégg tamit day xaw day xaw am lu mu niru xaw ma nag mm-hmm. qu'est-ce mm-hmm. mais li am solo nag mooy nañu fexe ba ñoom li ñuy def nañu fexe boog laay wax ba ñoom ñi fi nekk nii bureau bu bees bii ki ñu fi wutu woon li mu fi defoon mm-hmm. ci lu baax nañu fexe ba jii jiima def lu ko double moo gën mais ay problème ay jàppal bàyyil loolu moom xaareesu ko ci ñoom déedéet terewul nag mbir moom moo doon des koy teg ci ay règle mm. waaye règle yooyu dañ koy waxtaane ba tënk ko ña ko seq ñëpp buñ ko tënkee nag ba bind cahier de charge wala règle ba teg ko ni lii la ñuy doxee ñu doxe ko mm. pour saison bi jeex bi saison bi jeexee nag après ñu xoolaat Mhm. ci kanam ni li baaxuloon ñu defaraat ko mais nag man li ma jaaxal daal mhm. mooy ci cours saison bi ñu ko defee biir saison bi commencé avant bi di tijji lañ ko waroon waxtaanee parce que loo gis tamit ay oh, mhm. décision ki nga xam ne moo di Pape Abdou Fall moom moom taxaw na tem d'accord ci nee jaral na leen ñu arrêté activité mais pare pour pour fay un million waaw mooy li ma la rek ça veut dire que kon problème déjà juddu li ma doon wax a ngi noonu ça veut dire Abdou fal dafa nekk ci promoteur bu mag bokk tey ci promoteur yoo xam ne. Mhm. maanaam événement yu mag tëgg na ko fii ci réew mi. Mhm. te ba tey mu nga ca defe naa set Papa Sow lamb gënu ko rëy. te ci bés yu mag yi ñuy xaar la bokk. Mhm. mu jiite ay promoteur moom tamit yore kuréel. yaa ngi dégg tey bu wax ji génne ñoom ñu xëy ne loolu duñ ko def tey suba wala wala wala gannaaw suba jaral na leen taxaw defe naa tey ñun souhaité wuñu promoteurs yi benn promoteur taxaw ci say mm, ci say activité seen sayit warta souhaité loolu mm-hmm. kon nag lii defe naa ne waroon nañ ko def wala ñu waxante woon ko balaa ñu doon ubbi saison bi moo mm-hmm. gënoon mm-hmm. mais buñ ko defee nii problème lañ fi nar indi coow li jàppal bàyyi lamb ji taxawaat te lamb ji taxawaayam du amal njariñ kenn euh, surtout ni mu commencé tijji ni ñu commencé bànneex commencé di jàpp benn benn plaisir ak benn bonheur boo xam ne nii c'était ñu bu ñu duggaate ba ci biir ñu di ay coow kon xool li ñuy def Bira yow la ñu jiital yàgg sa comité ngeen nekk di doxal xool leen bu baax a baax baax li ngeen di doxal moo gën maanaam teg mbir yi ci siraatal mustaqim parce que tamit gis nga njiit dafa diis de ami ñu la jiitalee da nga war a doon royukaay waykat ba woyoon na ko yaa dégg Bira Sène nag du gan ci làmb ndax CRC bu Kaolack moo ko yore woon di ko doxal kon yaakaar naa itam te ku ne xam na ne ku yore woon loolu di ko doxal buñ la tey làmb yaakaar waa làmb am ci yow yaakaar mm. te bi nga ñëwee tamit ñëpp koo dégg dañ naan ñu ko ñaanal mu réussir kon defe naa réussite boobu nag li koy gën a indi bokk na ci waxtaan ñu xëy rek ñu dem ci biir biir saison ñu ne lii lee la ñu xëy xëy jëlaat beneen décision ci biir mm-hmm. loolu day xaw a doy waar quoi mm-hmm. day am leen lu muy niru dëgg la bu buñ jógee foofu nag xew-xew dafa am la woykat ba doon wax whatever happened in Vegas. waaw forever stay in Vegas. loolu nag moo jàll si ba Sénégal ndax ki nga xam ne moo di moo géej. dafa pare daal moom pour tëgg ay combat mu mel nii rek diggante Jordan ak doomu Dangu bu jógee foofu Cobra 2 Bara Ndiaye Tonnerre Mobile 2. loolu daal moom moo gën a ko xawal. moo gën loo ci moo de <laughs> moo de loo ci mën a dégg la ko Wally Seck waxaloon rek. dina xalam de ci waaye xalam nga xam naa daa mujj neex ba Saara. <laughs> Saara na moom yegsi na waaye nag loolu du ñu bett parce que uh-huh. xamul tax du ñu bett mooy moo gën ku ne gis na ne ah. daal na am relation ak mbër yi mbër yi di jóge fii Sénégal di dem états di ko fa fekk mm-hmm. muy seq ak ñoom ay yëngu-yëngu ak ay teraanga defe naa tey bu wëlbati koo ñëwaat di leen tëgg defe naa loolu xel nangu na ko mhm. muy liiru jaan muy guy gi muy Abdou juuf muy mobile ak yeneen i mbër ama neex ñoom ñëpp ku ci ne am nga ak mooget ay relation yu dëgër mhm. kon defe naa tey mooget bu ñëwee tey taxawal lu mel nii li nuy mën ñooy ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla def mu réussir ko mhm. parce que tamit wax dëgg yàlla seen sénégalais la bu nekk dëkk états liggéey fa ba yàlla may ko teraanga mu bëgg dellusiwaat ci réewam di doxal sport wu réewam rawatina sunu Euh, sport national bi. Mm, ah kon daal moo génn mm-hmm. borom Las Vegas. Mm-hmm. lii waaye yàlla na réussir. waaye rawatina combat wulli ak liiru jaan ba amoon ca jaan laa ilaaha illallaah boobu combat fii bu ko bu ko arbitre bi di soufflé fii. Mm. noo du am deltu ginnaaw dina dina neex dina jël Alaaji Mbay Kicok. ak nga xam ne nii. waaw Alaaji Mbaye Kécub. Mhm. xam nga loolu tamit leneen la. dëgg la ñu ngi koy nuyu moo gën daal kenn du moom. waaw def na lu rëy. Mhm, jàmbaar te ku def lu rëy faw ñu wax la lu rëy. kon ah, wax leen te wax la demee. <laughs> dëgg la bu ñu jógee foofu nag ñu seeti ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 six combats disputés en 2005 Balla Gaye 2 l'homme des grands défis ñëpp xam nañ ko. moom moom daa ñeme défi. waa moom moom yàgg na wax dëgg yàlla di relever ay défi. Mhm. Balla ci bés yu mag moom la ko commencé ci Iba Mar Diop. Mhm. ba ni mu ñëwee Demba Diop ba Léopold Senghor. Mhm. fu ci ne. Mhm. war na fa boppam ci ay bis yu mag. defe naa itam loolu moo lay yoon ne kon moom li mu doon di mbër nekkul ne sa sama baay kese. croiser les bras mais non non ca boole nag uti xam-xam. liggéeyi entraîné uti doole ba man di wane boppam. mu nekk mbër moo xam ne defe naa tey Sénégal booy tànn mbër yi tey yi yi dàq bëre ci làmb. buñ dee cinq la moom cinq yooyu da nga ko ciy dugal buñ dee ñettal di nga ko ci dugal bu dee ñaar di ko ci dugal. parce que tamit loolu la mu wane la. muy mbër moo xam ne wax dëgg yàlla ah damay wax ne daal ah macha allah bëreekat pire la moom Omar mhm. Sakho alias Balla Gaye numéro 2. Mhm. Mhm. dëgg la ki nga xam ne nag moo di Pakala moom moom mu ngay dànkaafu Forza nee na bu bëree mu daan ko bu xeexee mu duma ko. waaw loolu de yàgg na ci làmb. tëkkonte la rek bataille la. boo xam ne ñu ngi ci jëm ci combat bëri woon nañu. combat su ma juumul sax est-ce que du Luc Nicolaï moo tëggoon jooju làmb wala wala ma ma bañ a juum daal li nga xam daal la ca xewoon ku ne gis na ko maanaam ki nga xam ne nii moom moo doon pakala forza mhm. pakala moo ko daanoon mu doon combat mhm. bu ñu amee revanche gaston bi ko ah mu ne dinaa ko daan ko su mhm. xeexee su bëree loolu dañuy la ñu jógee foofu nag ki nga xam ne moo di euh, Luc moom euh, dina ubbi euh, saison de lutte simple am 15 mai insha allah fële ca ñaaning teg 3 millions waaw muy la am solo parce que léegi itam yàgg nay tëgg lutte simple ah. bokk na ci loo xam ne nii lu muy tëgg la yu mu yàgg di promouvoir la mhm. kon defe naa ren su ñëwee tamit war a ubbee ca ñaniñ muy tombeek samedi bi njëkk ji buñ korité ba pare duñ mën a def lu dul ñaanal ko yàlla rek yàlla na réussir loolu mhm. parce que tamit euh, mbay ci naa ne ku ne ñaniñ ne mbuur ne sali mhm. ne ngàpparoog somon ak te lig foofu moo di ab zone am bu fa démarré rek defe naa day doon xel mu dal war a wut si ndakaaru nag ñuy waajal combat royal bi ak yeneen yooyu journée yoo xam ne yaakaar naa ne ci li ñu am ci xibaar daa mel ni fas na ko yéene tëgg kon daal ñu ngi ko ñaanal euh, Euh, bésam boobu. Mhm. yàlla na ko réussir moom lit ni ko du nuyu raay ba suma grand frère. Mhm. Mhm. am na solo yooyu la information su suñu làmb ñoo ko fësaloon bu ñu jógee foofu rek ñu dem record lañ fa fekk nag moo di signature convention avec euh, Bamba Mboub et fils directeur de l'horticulture tend la main au promoteur mu mel ni auditeur. mel ni mooy euh, docteur Macoumba Diouf. waaw waaw waaw suma xarit suma mag. suma man naa sax suma deesi ah docteur mm-hmm. Macoumba Diouf ma koy nuyu di ko siyaar bari ki dem ca mairie Patte d'Oie la woon mm-hmm. moom ak Bamba Mboup Bamba Mboup moom benn moodu moodu la bu newoon États-Unis yaa safrla Italie ñëw Sénégal mm-hmm. léegi nag taxawal benn kuréel di jàpp mbër yi pour ñu am liggéey ay garde rapproché lu nekk tey nag mu ñëw ci côté mbay mi te bu ñu nee mbay mi sa rawatina mbër yum dër docteur Macoumba Diouf moom la ñu dénk lool ci ministère de l' agriculture muy horticulture mu ñu amoon benn convention bu ñu doon signé mu nekkoon jotaay bu neex vidéo bi defe naa ku ne gis na ko bi rekki vox gis nañ ko feneen mhm. tey loolu record ay indil ñu ko mhm. mel ni daal la docteur wax na ci mbër yi bàyyi xel mhm. mbër mu ci gagné ay millions booy boo tamit nga bàyyi ci mbër mbayum dër mi xel ak wàllum càmm gi parce que yooyu day dundal am réew te yaakaar naa ne boo demee États-Unis wala nga dem Europe ak foo mën a dem bokk na si borom alal yu bare bari yooyu gisoo bokk na ay baykat ak ay sàmmkat moom euh, day indi euh, koom-koom. <laughs> loolu loolu yorum réew mbay yorum réew ak càmm. <laughs> ak napp. <laughs> loolu ah, kenn du ko desal ginnaaw suñ jeune léegi ñëw Dakar nekk ci kii bee leen gënal dem mbay. Dakar waaw loolu day am am na ñu des foofu. c'est que ko mais mais loolu tam boo gisee mbay mi euh, c'est du ci ñoom dama naan état moo ci war a gën a jàpp. Mhm. comme ni docteur nar a def nii ak Bamambou. Mhm. état moo war a gën a pousser jeunes pour ñu mën a mbay maanaam jox leen ay moyens dimbali leen xam nga tey milliards yi président génne pour jeunesse bi bëri na fan yi passé mhm. loolu lépp bu ñu fexee jàppale ci jeunes yi mhm. parce que àll bi bëri suuf si bëri na Sénégal ah. mhm. ñu encadré leen ñu bay bu ñu ko ñamee rek bu ñu xamee li ci nekk rek dinañ ca jàpp waaye nag it ah, loo gis lu ne muy dox day am ci lu muy taxaw bu mën a dox xam nga mbayum nan nawet kese comme trois mois yooyu mhm. mënta téye benn jeune ci àll bi ah, tamit waaw loolu mooy mhm. wax ji dëgg la bu ñu jógee foofu rek ci euh, lutte simple ba tey ki nga xam ne moo di Yékini moom dina ubbi saison am fële euh, le 22 incha allah. moom itam mise ba 3 millions la. waaw ca ñaaxar ca ñaaxar waaw. loolu lay def yàq yi borom faata production ñu ko di ko mm-hmm. moom itam ba mu bàyyee lamb ba tey dellusiwaat na di jël alal di ko ci dugal. Mm-hmm. ah taxawal structure am faata production. Mm-hmm. ren mu fas yéene tëgg journée yu bare bare bari nar a ubbee ci ca ñaaxar loolu nekk loo xam ne daal kon le 22 mai la ah ñu ko ci ñaan ndam ak réussite rek parce que lii yëpp yokkutey lamb la rek waaw. dëgg la mhm. euh, ki nga xam ne moo di rëg-rëg moom mu nga foofu noonu ca Singapour euh, depuis samedi di préparer ko combat yàlla na si am ndam mhm, amiin Omar Kane rëg-rëg Mhm. parce que tamit vraiment actuellement mu ngi wane boppam ci MMA bi. Mhm. di wane lu leer nañ. dama koy suivre Instagram waaye entraînement. non ah, li muy parce que oh, tamit fa mu dugg ku fa dugg bëgg fa dara faw nga def loolu faw nga mhm. rey sa bopp. ami am na loo xam ne boo ko bëggee lay jaral kon rek daal ñu ngi koy ñaanal yàlla combat bi mu dëgg mën ni yàlla na si am ndam. di nuyu ensemble Leyti Sène. ak ka nga xam ne nii moom mooy rakkam. di waaw di nuyu daal ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko encadré ñëpp parce tamit mbër la bi nga xam ne tey mu ngi ci làmb ji waaye bool na ko li nga xam ne nii moom moo di MMA bi. Mhm. Ami Diouf. la bu ñu demee Equivox TV lu ñu fa fekk Babacar ki nga xam ne moo di euh, El Hadji Tour mi ngi euh, répondre ki nga xam ne moo di dafa Gueye. waaw mhm. parce que boo xoolee keral lañ daje samedi. dafa Gueye dafa génnoon ñu laaj ko si combat Modou Lo ak Ama. Mhm. mu xamle ci jàngatam en tant que technicien que ni kii nga xam ne moom moo di. Ama Baldé bu mu jaawale Modou Lo ak Tapha parce que dafa jàpp ne Modou moo gën a coriace Tapha Tine mhm. Tapha foofu la doon waxe El mhm. Hadj nag jàpp na ne Tapha Gueye loolu mu wax du ay waxam mhm. parce que xam nga mbërëm Gris Bordeaux jox nañu as Tapha mu daw kon bu fekkente ne mbërëm mu coriace lay wër mu gën a coriace Tapha Tine ne na loolu mu wax jàpp na ne demewut noonu

nga ne Balla Gaye Bombardier des na ko jàngat Tapha Tine Boy Niang des na ko jàngat loolu du mën a ñàkk. dëgg la euh, tonnerre mobile faaw ñu jàngat ko. dëgg la waaw mënta ñàkk waaw loolu mënta ñàkk noonu la. Mhm. Euh, lii la yéene ay fasaloon tey Babacar. lan ngay tàggatoo waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan ñëpp jàmm. Mhm. mais tey di nuyu koo xam ne suma xarit la. Mhm. Papa Guèye keroog nuyu naa ko ministère des finances. mais tam di nuyu koo xam ne baayam la. di suñu jur mhm. nekkoon danse présidentielle di Ablaye Ndour di ñu bàyyi xel mhm. mu koy nuyu bu baax a baax mu nekk fii ci Nord Foire ak euh, yoof bi di fa def lu am solo mhm. mais tamit di ko def ca Fatick ga mu dëkk Ablaye Ndour maa ngi koy nuyu nekk nekk tey léegi ministre conseiller si président Macky Sall maa ngi nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa Fatick yëpp parce que doomu séeréer la doomu Fatick la tamit koo xam ne mu nga ca biir Fatick di jàppale waa Fatick parce que loolu boo gisee ñu di wax mooy ñoom dañuy bàyyi te di ay doomu cosaan buñ ko waxee ay doomu séeréer lañu moo tax moom Abdoulaye Ndour vraiment di ko bëgg làmb maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ñaan yàlla tamit semaine bi mu aw yàlla na ko ko yàlla gën a leeralal di nuyu góor di doomam mais rawatina tamit Papa Guèye mi nga xam ne nii kenn du moom ci man Papa Guèye ministre Papa Guèye ministère des finances mhm. Papa Guèye mhm. borom Parcelles Assainies borom jàmmalaay mhm. kenn du moom waaye Abdoulaye Ndour daal a jaaraama mais am itam di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre ci Equivox TV rawatina Abdou Laat seen ca marché Tilène <laughs> laat maa ngi koy bëggee borom ah. or yi jaaykatu oral di sama rak di sama xarit mhm. di doomu bawal maa ngi koy bëggee bàyyi laat bu groupe baax di nuyu waa groupe baax yépp mhm. commentaire kat yi moom amuñu seen fay yàlla na seen jàmm yàgg parce que ku lay seetaan moo lay commenter waaw du mën a ñàkk mhm. ñooñu amuñu seen fay yàlla na seen jàmm yàgg amiin waaw yow it kenn du yow di nuyu xulle mi noonu si film bi ak montage bi waaw Habib kenn du moom waaw moom <laughs> am allah daal na ko yàlla jàmmal waaye man itam du ma te nuyu ma ki nga xam ne moo di Cheikh Bass sama waa ji Cheikh Bass waaw nee na invité ca ca ndogu la boo dem kër ma sax da yow nee du Kër Masar de am na feneen fu mu ma wax. du yëmbal. waaw du yëmbal Kër Masar la mm-hmm, dëgg la boo ko jaxasee la am problème dina ñëw dégg nga. kenn du moom voilà euh, ñu ngi euh, nuyu ñëpp may euh, simna fogole séeréer boo gànjaay simna AES tey lii laay tëjee di leen gërëm yéen bokk téléspectateurs yi di leen jox nag dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf. moom tamit am adversaire bu mel ni man. bu dee xee maa ko daax bu dee bëre maa ko daax. combat yi ma yëpp wallaahi combat bii ma jëm moo ci gën a gis combat bu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 188 30 30 78 188